ñoo jàkkaarloog taskatu xabaar yi ñoom nag ngir waxal seen euh, nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak ko ak Elimane euh, Dièye di Ousmane bopp réewum Sénégal askan wi ñoom la ñu waajal muy leader yi nekk ci coalition Diomaye président effectivement mën naa ko doon dégg sànq sax mhm. euh, muy loo xamante ne dama koy rafetlu mu mel ni loolu tamit dina tax nit ñi mën a xaar bu baax a baax a baax la président mhm. Bassirou Diomaye Faye ba xam 100 jours yi nga xam def na ko fi mhm. te nit ñëpp di ko wax muy mandat 5 boo xam ne 100 jour la ci defagum. mu wax ñu lan lan la ci def. Mhm. parce que fu mu toll nii dafa am lu bari loo xam ne askan wi mu ngi koy xaar. askan wi mi ngi xaar ci leeral li nga xamante ne mooy xaas yi fi luubal. Mhm. ak dossiers yi nga xam ne waxoon nañ ni ah mi ngi ci seen loxo jot nañ ci. Mhm. askan waa ngi xaar li nga xamante ne mooy 1000 euh, milliards yu Covid 19 yi. ak détournement yi nga xam ne am na ko fi mhm. askan waa ngi xaar ay yu baree baree bare yi nga xam ni askan waa ngi koy xaar bu ñu ko doon lim fii ba suba duñ euh, du jeex mhm. kon xam nga ne tey attaque yaa ngi jógee fu ne di ñëw ndax xam nga ne tey ji Bougane mhm. wax na ci nee na 100 jours yoo xamante ne ñoom defuñu fi dara yor ay xeeram bi sànni jàpp ni que ñii seen projet bi ci wax ci làmmiñ rek la yem ñu projet kon tey jii li occasion la moom ci boppam moom le président Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. mu wax ak sénégalais yi ñëpp dégg ko mu wax bi mu toogee ak léegi mm-hmm. yan act la posé mm-hmm. ak ci lan la ñu nekk loo xamante ne nii ñu ngi ciy liggéey te pareegul askan ñu mën koo xam parce que wax dëgg yàlla man dama jàpp ni sax am na ci loo xam dafa xaw yéex parce que ñoom dañoo waxoon ne opération gokki la ñuy def maanaam képp koo xam ne dangaa luubaloon xaalisu askan wi di ko génnee te askan wi foofu la ñuy xaar ñoom tamit ci seen liggéey parce que loolu dafa am solo parce que ñëpp bokk nag ay nit ñu ko fuux lekk day yomb. parce que bi euh, Covid 19 bi dañoo tëj nit ñi seen kër. def couvre fa kenn génnatul. ñu jël xaalis askan wi di ko lekk. kon loolu dafa jot sëkk ñu leeral ko. kon tey jii askan wi li ñuy xaar dafa bari te wax ji bari na ñi ngi naan amuñu projet ba pare 100 jours sax man pour man dafa teel hmm. parce que ñoo xamante ne ñu ngi soog a xam nga 100 jours ñetti weer la ak fukki fan waaw ñetti weer ak fukki fan nit mën na fee soppi réew mu yàqu réew moo xam ne dañoo waaw réew moo xam ne dañoo paacoo suuf mi daa yàqoon réew mi dafa xanaa paacoo suuf si euh, lekk alalu askan wi li ñëpp ah, bokk. ay nit ñu ko fukk lekk dañu lay dégg ah, jël ay dossiers yoo xam ne ne maa ci teg sama conc. mën nga bokk rek ngay dégg. dégg. Hmm. ak euh, justice boo xamante ne kenn wóolootu ko woon. Mhm. parce lan gis nañu fi ba taay nit ku ne man dañ maa jàpp parce que dañoo gis sama téléphone dafa to Ousmane Sonko gis nañu fi ba taay nit ku ne dañ maa jàpp parce dañoo gis sama téléphone ma bokk ci groupe Pastef dem na ba nga xamante ne sax kenn wóolootul justice bi. Mhm. yaa ngi dégg ndax réew mu lan salfaañoo mhm. réew mu jaxasoo. comprendre nga jeunes yi sonn gis nga mën mii mbëkk mii ñuy wax. régime bi fi jaar am na ci part de responsabilité bu rëy rëy rëy parce que milliards yi nga xam dañ koo détourné bu ñu ko defoon ci emploi des jeunes mhm. kon jeunes yi baree bari du ñu tenté di dem ci mbëkk mi mhm. ñaata yoon ñoo fi jaar si yoon Nicaragua ñoo fi jaar si yoon bi dem mhm. am na ñoo xam ne ba léegi liggéeyu ñu États-Unis ay coono yi métti lañ fa nekkee mais am yaakaar moo leen taxoon dem kon nag ñu ngi xaar président Diomaye samedi du samedi la yaakaar naa incha allah ci déclaration bi nga xam dina ko def. su hmm. boobaa nag. Hmm. dinañ mën a xam exactement. ñoom fan la ñu toll xam déclaration def ban anam la ak koy def. ak parce que man affiche bi ma gis. Hmm. yaakaar naa Alioune Badara mën nañ jagal affiche bi. mu xool Alioune Badara waaw. affiche bi ma gis. dañu ne. coalition Diomaye président. ñoom ñoo fas yéene. def benn waxtaan avec la presse de 14h à 18h. ci Libé samedi. ca maison la presse. bon am naa beneen xibaar bu ñu ma wax ne ma ni bu ñu ci weesoo président ci boppam de def déclaration mais au palais parce que le président de la république maison de la presse du këram déedéet du fu du foofu dafa war a am mhm. moo tax ma la euh, fi may rejoindre Bokar sur le mhm. plan la communication dafa am ay signaux yoo xamee ni tamit nit ki da nga koy da koy joxe mu dalal xelu nit mhm. parce que institution la président la république d' abord daf ñu waxoon ne ni day génn ci mbirum politique nekk le président de tous les Sénégalais. moom la ñu waxoon. Mm-hmm. Mm-hmm. moo ko bind ci programme Diomaye président. Mm-hmm. ne leader yi dem Ousmane Sonko président parti la amul problème mën na dem yeneen leader ñoom sama. Euh, tata docteur Aïda Mbodj ak ñooñu ñëpp mën nañ dem. parce que ci Diomaye président lañ bokk. mais lui le président de la République il n'est plus dans Diomaye président il est président Diomaye président propos de campagne la woon lettre de campagne la woon. Euh, euh, nu ñu koy woowee ci cri de guerre campagne la woon weesu nañ ko ci président la république warul sax dem ci daje bu me daje bi waru fa dem. mais que nekku euh, yi nga xam ne mi ngi jógee fu moom amaana. président président waru fi toog di tontonte nag. parce dafa bëgg hmm. leeral. non président waru hmm. fi toog di tontonte xam nga président lu muy tonto hmm. par des actes que l'on pose. sama conviction mooy un président la république. du tontonte et c'est même sa nature. xam nga lu muy tontoo. Hmm. par des actes qu'il pose wala une déclaration officielle. Hmm. qu'il fait ca palais de la république. Hmm. caméra yi jël ko. mu wax ci cent jours yi bu ko neexee na ni cent jours yi nii am na lu ñu jot def. am na fu ñu jëm. en tant que président de la république. am na sañ-sañu def déclaration boobu. mais pour Diomaye président. Diomaye président président Diomaye bokkutu ci. dëgg la boo ko c'est le président de la République de tous les Sénégalais. ñi ko mm. bëgg ñi ko bëggul. Mm. ñi nangoo ñi nanguwul. Mm. léegi nag les leaders politiques leader u Pastef. Mm-hmm. Ousmane Sonko donte c'est le premier ministre. il peut se que mën naa dem parce que casquette poli euh, premier euh, damay di nekk casquette premier ministre. son mm-hmm. casquette politicien. Mm-hmm. leader du parti amul problème yeneen parti yi bokk ci Diomaye président mën nañ dem défendre seen seen projet. si y a projet. wala seen i réalisation s'il y en a. wala seeni vision. s'il y en a. li tax ma naan s'il y a. mooy moi j'attends qu'on me qu'on me man jàpp naa déclaration politique générale ma xam ne c'est ça qui a été dit devant mhm. l'Assemblée nationale les mhm. députés. Mhm. ma mën a jàppe à partir de foofu. li nga ma waxoon ci déclaration politique générale. 100 jours après lan nga ci def. man jàpp naa ni sax day ñëw pour tontante sax mais man xam nga li ma gën a jàpp peut-être dafay ñëw dañuy ñëw pour wax ni fan lañu. toll ci liggéey bi. Mhm. ak li nga xam ne askan wi ñu ngi ci ñoom fan lañ ci toll. Mhm. loolu laa gën a jàpp sax. yaakaar naa sax bu fekkonte ni nag ci seen communiqué bi bu fekkonte ni président Jimi boppam dana ko teewe danañ ko ci boole waaye leader yi nga xam ni ñoo bokk ci coalition Diomaye président la wax ñoom ñoo daje am ak waxtaan ak askanu Sénégal waaw Omar ndax ñoom nag ci dëgg-dëgg maanaam bu nu waxee